barke xaadimu rasul auzu billahi min aseytaan rajim bismillahi rahmaan rahim laylatu mawlidi nabi muhammad laylatu mawlidi nabi muhammad laylatu mawlidi nabi محمد ليلة ما وري بي ليلة ما وتحفي وتهرس تاسمي ليلة مولد النبي محمد ليلة مولد النبي محمد ليلة ما ورري بي ليلة ما وتحبي وتهري ستاسمي سرين بامبا نينا نينا سيدنا محمد ما بامبا نينا محمد رسول الله صلى على باب الهدى سرين بامبا نينا sali ala babil huda sali ala babil huda sali ala babil huda nail mada molil nada laysil hida mahirada babil hula wal karami laylatu mawlidin nabi محمد ليلة مولد النبي محمد ليلة ما ورري بي ليلة ما وتحبي وتهرس التاسمي بأنجاة والفلاح مع سرور والنجاة بأربا وصلاح مع اندفاع نقمي خبدت هن روات ثبتت كمثله نار الفئات مام ياي دقمي واي نساوة التي قد سمد وجلتي للفرد قبل الملة وسيرت كالعدم وكالخداب سوبي تردل يا للريبي حسم أخبار النبي ورجو بندمي يا سيدنا محمد سرين بنينا تريد ذياب النجوم عن السماوات الرجيم وفرق سرا يليم بيس به ساوى كمي ستين ولدا خير نبي قد بدا صلى عليه منادا فادو بلكمي سرين بامبا نينا نينا سيدنا محمد ما بابا ليلة محمد رسول الله نور نسيم قد يرى نور حسيم قد يرى نور حسيم قد يرى نور حسيم قد يرى سرين بمبلينا نور عظيم قد يرى بي قصور قيصرا من كان في يوم الخرا مكة مكة مكة مكة مكة مكة أنا كسب برو مكة المكرمة مكة خير الهرم إيوانك سنسدا فيها وخبل فيها سم كله فارتفعا نحو السما المكرم حتى سرير انكسرا لأجل هول اخترا من نوري أفضل الورى ربي عليه سلمي بدا صلاة لا تزول بالعال والصب الخدول وبيجدد سبيل بلا أهدا أو ألمي سل وسلم على مناس مولدا جلا لخير ناس والخلا ولتتقبل خدمي مولد محسن مبارك محترم تقسم ينحتم على سبيل تقدم تقسم بسنة يقودنا للجنة بزياد المنة لمخلص معاسم فمن يواسم مولدا نبينا باب الهدى فلا يحاسب خدا فاختر من واسمه فمن يواسم مولدا خير البرايا احمدا فكسيد سيدا بدرا بخير والي سرين بن انا فكل من انفق في مولدي المسرفي مالا بخير صرفي walaw bi qadri dirhami faynaaka man adar yawma hunaynin wa sabar wa yawma badrin wa nasar xayral waraa المفهم فمن ياسم مولد نبينا باب الهدى فلا يحاسب خدا عند الحساب المفهم فكل من قد قدر مولد افضل الورى مواسما مبصرا بسكر أو لهم فإنه قد سفرا بما يديم البصرا ولا يلاقي ضررا يوم اجتماع الأمم فمن تامن هيا لمن لو خرخرا مبجلا فخبا خيرات أهل الهمم ومن لا سي الخرار mawlid sayyidil wara tabarukan fasayara num waxoo bil fatqami wayna la maayil xuri mawlidu xayril basari fasurbu bil mutaari yokku fu kaydal marxami sëriñ bi nee na yu nawirul xalba sarab min salikal ma bil mujab wal xalba yuhyi doona waan saqa in yaxtami sidil basir yaa min yaa la wad yor fii sifaa'un li sudoor li kulli haadin yantami salaa alaa xayril basar baaxin yudiibu lil busar bilaali wa sabi duraar ما سلام يعتمي يا ملم الخلق فخا سلي على من خلقا والخلق فاخا والخلق فاخا والخلق فاخا والخلق فاخا خلقا كالخلق والتسلمي سرين بمك فتوبا نينا نينا سيدنا محمد قد كان ساتا وسوتي في القد جالس تتي ولم يكن بالمفرط ولم يكن بآدمي ولم يكن متاما ولم يكن مكرسما محمد رسول الله بل فاق كل من سما من منتمي لآدم كان يطول كل من ما ساو في كل زمن وكان واسع الأتن يترك بالتبسم وهو جليل الخلق بيان مسرب بعمرة وعدب وأنجل سور سمي يفتر بهذا ابتسام كالبرخي أو بالخمام محمد رسول الله ودهكو يجو السلام كسر جن في سلمي نانا محمد ووجهه مدور وهو قميص أزهر wa huwa bayyun asmaru murattilu takallumi kaanama asahabi fi qadihi lmuhasabi wa kana sabta alqasabi hirnino soosamami kaamilu usunin adhaju wa asdabun mufallaju wa askalun mubtayiju walbacumaa ilxumami wawa akmalu lwara xalxan xalxan wa xuluqan saara sëriñ bi nee na Muhammad moo gën a mat ñëpp ci bind wawa akmalul wara xalxal wawa akmalul wara xalxal xalxal wa xuluqan saara wal mislu qattu lam yura walan yura fi siyami nee na kii may way mooy ahmaduna rahmatuna hamiduna nihmatuna maamuduna فرحتنا والجود مسرد يمي بك سألت مالكي كوني نار سالكي وسن جزاب ناسكي بمن جلا والمبرم وأن يقود للنبي في أبد بالنخبي سلام المخربي bilanti an wal maxtami borom tuuba borom tuuba borom tuuba borom tuuba borom tuuba borom tuuba borom tuuba borom tuuba borom tuuba borom tuuba borom tuuba borom tuuba borom Touba borom Touba borom njaareem Seexul Xaadim Seex Ahmadu Bamba ana ko sopp Xaadimal Mustafa jàmbaar ja borom Touba borom njaareem Xaadimal Mustafa xayrul xaadimi sëriñ bu mag Mbakke Cheikh Ahmadou Bamba Mbakke Xaadimal Mustafa Xayrul Xadimi Xaadimul Rasul Ahmadou Bamba Xaadimul Xadim Muudu Mbakke Baari Seyxna al Xadimi sëriñ bu mag bi borom tukki bu mag bi borom ñibbisi bu mag gi borom jumaa yu mag yi borom màggal gu mag gi borom weeru safar borom Masaalikul Jinaan Seyxna al Xadimi sëriñ Tuubaa Mbakke Serigne Touba Mbacké muridi jóg leen màggal baayu Serigne Saliou jàmbaar ja est-ce que yaa julli tulu jeewal yow rek Serigne bi Mbacké yaa julli bi Mbacké yaa julli ca géej ga yow rek julli galwaa est-ce que julli maayombaal est-ce que julli limbarwëli julli galwa julli dawmi julli brasilil julli kabinda julli cameroon julli iddi julli banana julli fuluba julli dawmi julli matadi julli buyama julli brasilil julli kabinda julli cameroon julli sarsara julli dawmi julli kongo belsi julli geewal julli kokki julli lugolo julli ndar julli dakar Dakar julli ci géej ga julli ca bato ba Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba jug leen màggal maami Cheikh Sidi Mokhtar jàmbaar ja Serigne Touba Mbacké yaa julli bara siwil julli Kabinda julli Cameroon julli Irdiburut julli Mayomba julli Bunama julli Jeewal julli Kokki julli Lugolo julli Ndar julli Peex julli Sarsar julli Peex Serigne Touba Serigne Touba ala ko sopp maami Cheikh Sidi Mokhtar jàmbaar la ilaha illallah Serigne Touba ah. yaay kenn ku wecci mbooloo yaay kenn ku we ci mbooloo bu rijaal yëpp dajaloo bu ñëpp dajaloo fa diwaan ah! sëñ Tuba soo ñëwee wat kon kay amoo nawle fii ci duniya ak ca aljana li yëngu bi bari bare lépp fi moom lay teere moom dongu moo dem ca géej ga dellu si woo waa kiimaan yaa di seen kiimaan yaa dëkk sa boroom rahmaan yaa dëkk ak ci alxuraan kon koy dëkkal ak nun ba aljanna faw tisbaari jeewal lañ ko jox me daayima kanaan ko doxal xoo geesu gis ma santanu war ba nu amee ku mel na daa mbàkke ci lu wér mu nuy sunu cant ak yow daal jiitu naa kunta xadimuna inda rabbiya keroog ba dir ba ci sigal nga rasulullahi sigal na lislaam keroog ba ba ci sigal na rasulullahi sigal na wàcc nga wàccaale ñépp am nga neex ma magi maam Cerno sunu jàmm waral demam si gi ja xaadimu rasulullahi yaa bari rahma keroog ba mu xiifa néegi mbàkke baari ngir liggéeyal yonent bi yeesal ngiram ma keroog ma nga njëkk a dajeeg noonam wal leen fay xar baax tubaab yi xam ne xaadim mi mooy borom karaama ba bu la lee dir ba jéggi jë si gën a rasulullaay Cheikh Bamba Cheikh Bamba ana ko sa bu bàyyi Cheikh Abdul Xaadar ba mu la lee dir ba jéggi jë sigal na rasulullaay sigal na lislaam julli na ba sëlmal yii gaa tegaal ga xaadimul xadim mbàkke kii mooy nixmal xadim tubaab bi boole nañ ko gaynde moo gaynde ga ub leen mu mujj di xontu gaynde ga doggi mburoog tàndarma tubaab boole nañ ko kaw nag nag wa jublu bamba nag wa ba mu tëbi keroog agul ca ma gasañu am pax ba max ca baayu sëriñ saaliw suul ko maasele ko waaye moo ma kan moo ma kan sëriñ bi sa kan moo ma moo nuy kanum sunu maam Ibrahima génn jamono ji jamonoy Bamba xanaa yëgu leen ne jamono ji jamonoy Bamba xanaa yëgu leen ne jamono ji ah. jamonoy Bamba bëgg Serigne Touba bëgg Serigne Touba ñu leen magal maami Serigne Mbacke soxna loo bëgg Serigne Touba mooy maye salaama tisbaari jeewal lañ ko jox me daayima njol ma kanaan ko doxal foo geesu gis ma tisbaari jeewal ku xam góote ma doone Serigne Touba diraas moroom ma tisbaari jeewal ku xam ku dem fa pii ba xam ne Serigne Touba du maasum géew ba tisbaari jeewal la murid yépp metti lu ba muy dem ca géej ga dana maam Cerno maam Cerno maam Cerno ana ko sabu Cerno borom Daaru Muxti ana cerno waxal murid moo waral Mamor Jaara borom saam magi mag di magam ba noppi jébbal ko jëmmam ngir borom saam tisbaari jeewal moo waral daaru salaam ak gaawaan kër seexanta yaa ngay baawaan tisbaari jeewal moo waral sëriñ Masamba sëriñ bi ma san ba laa san ba kisbaari jeewal moo waral waa diini Cheikh Mandoumbe Cheikh Mandoumbe Cheikh Mandoumbe ana ko topp baayu sëriñ Abibu maami maam Mor waa diini di wax ne Cheikh Mandoumbe xabaanay teen bu dul dey kisbaari jeewal jaa waral waa kër maam Cheikh Issa Dieng Cheikh Issa Dieng waa këram yóbbu addiya Cheikh Issa Diène tisbaari jabal jaawaral maami sëñ Sidi Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall magal Baay Fall ba maam Cheikh Ibrahima Fall babul muridin jàpp góor sol ko leer Fall xolam ba fees muy bëngéer maam Seex yaa ko goree faal mbër ca diiwaan lay bare abori jaar lan koy wooye fa góor jëm fa la xëye faal jërëgéen jëf sëñ Ablaye sëñ Ablaye baal ma tudd jërëgéen non sëñ bi tey yaram